yàlla def na ci sama ci man def bi génn ma ko ba ko waxee na ma ko lekkee mu ne ma sama mbirum bopp sama projet bopp aywa sama loolu laa ko yëg président bu ma demee ko topp moom ba yàlla def mu lijjanti ko ba mu lijjanti ko itam ba ñu war a tàmbali liggéey ba dañu war a tàmbali liggéey fekkuma ci tubaab moo tax ñoom yi ñuy wax ngir boo ko boo booy bi boo koy défendre bi tam mhm. da ngay am information yu leer mhm. wala nga topp wax yi ka ngay waxal ba xam li mu wax lu mu mhm. ba ñu tàmm liggéey rek suñu bés war a xam ni nga wax sax yàlla def na maa ko fayoon ci tur si maa ko sax moom mi ko yónnoon fekk mu fi Ndakaar loo fekk man soo wax ma fekk Cheikh Mahamadou Mountakha nekk njëriñ ba njëkk a siyaare sëñ bi moom amu ci lu tam déedéet la may wax te bëggoon koo laaj weesu gàtt loolu mooy quartier yi mu war a dem ci Touba ak yéen quartier la ak fi nga xam moo ko taxoon jub muy jumaa ji li ko ndax bokk na ci mbir du leen téegoo ba ca des it ñenn tam dañ ko dégg ne dama ne dama koy woo téléphone du ma jël démb mosuma ko woo mu ñàkk ma jël hmm. waaye daa li leeral liggéey bi ci quartier yi ñu mm-hmm. ak mm-hmm. ko ndax néew na ci dëkk bi sànc yi loo xam ne jugewul ci sama xalaat mm-hmm. wala bu jugewul ci sama xalaat tamit euh, maa ko ànd ak ñoom lépp te du toog ci saa bi wax ndax loolu laa fi bàyyi du lu may ndamoo itam la liggéey suñu tubaab loolu ma fi bàyyi ki ma fi tegit loo tax mu tegu loolu <laughs> islam ñëw ci mhm. waaye amu ci kenn koo xam ne mastaaw ne defal naa fi intervention ci entreprise bi liggéey ci biir Tuubaa mos ko tam mën a ngeen topp yëpp ba mu jeex loolee tam la ma cay bañ mooy xam ne lu jëm si ci dëkk bi waroon naa ko mën a def ndax seen naa ko mhm. ndax ñu ngi ko defal tali bi suñu Tuubaa waaye bañ lu yàq seen biir waaye lu was lu gàll ko moo tax mosuma ko def te mosuma ko def la ma ci la ma ciy soxlaa xam mooy na liggéey bi tegu ci woon hôpital bi ñuy wax. Hmm. ña koy liggéey xaw ma leen sëñ bi xamu leen. wala bu ñu daan xamee xam nga mosu mosu ñu fee ñëw leeral ñu ko. Hmm. hôpital bi moo dëgg foofu seen bi yàlla def na ngeen delloo seen seer bi fàttali ngeen fa ma ko daa wax naa koy yow. Hmm. bañ bañ koy tàmbali dem naa ko waaye mu xamatuma ci dara. trente bi ñuy wax. deux mille laaj tàmbali wax ak président. ba moom ci boppam sax fu ma néew daana ma ci toog di wax ne pour tarantu suñu bas bi ngeen xam itteel gi ma itteel bañ ñu tax xeer dem naa boobaa léegi xamaatuma ci dara ba ñu bi entreprise sax ñu hmm. toll ñëwaatuñ ci man loolu bu ma ko lijjanti hmm. kon ñoom buñ jaawale mbir yu bokkul hmm. wala ñu bëgg defaan rek ba bëgg yàq loo xam ne dañu yàq mu bi man loolu bu soom ci jéem ma ko lijjanti loolu yëfi état la loolu mel ne dañu koy jéem a jàngal tam buñ ko gën xam gënuñu ko xam état buy def appel d'offre entreprise soo ko génne génne ko loolu suñu yëpp ñëw ci. Hmm. jëmuñ ci dugal hmm. xam nañ ko suñu waaye nag Touba lu ñu fi def bu doon tëri itam wala ay lamp ba ci lamp yi ci mujj hmm. lamp yi ci mujj ba ba njëkkee sëriñ sëriñ ci mën nga leen boolal. maa ko ànd ñoom la ma ca war a xalaat ma booleel ak daal kat ñu dem euh, liggéey ci borom dellusiwaat ci man ma xoolaat. yi ma ci mën a dugal ak yi ma ci mën a sot ma sotti ko dellawaat ko ci siñ bi nag wan ko lépp benn for benn ba siñ bi xool ne lii baax na ñu door ko wéy loolu moom liggéey yëpp noonu la doxee kenn